rey Ndiaga Diouf gisu ko ci moom ba léegi ma ne bal bi rey Ndiaga Diouf maa wax ci kaw ba léegi gisuñ fetal ba ci moom jël nañu ay fetal këram kon kay Bart reyul Ndiaga Diouf ku ko rey dañ ko seeti feneen kon ñun tiitu ci benn